ndax moom moo ñu jiitu ci salle bi te yàkkamtigul te yàgg naa fekke ay CRD yu mel ni ki koy def moo lay gën a yàkkamti yow muy ñëw di wut si ñun dañuy wut si ñu ñuy dimbali ki lay dimbali nag nga ñëw fekk ko mu toog di la xaar jël temps yàkkamtiwul lu ñu wax mu ne kooku bàyyil dinaa ko lijjanti loolu yombul préfet ñoo ngi lay sant fu sant mën a yam dëgg la xamante woon nañ waaye dama jàngaat beneen jàngaat bu bees ci yow te préfet yëpp war nañ ko xoolaat ci loolu préfet nga may ma ma sant sous préfet bi nga xam ni yéen ñu boole ak moom euh, moom lu ñu wax ci moom doyul ndax euh, sawarte gi mbaax gi yaatu gi woyof gi lépp mi ngi ci sous préfet ñun amuñu fayam ñoo ngi bëgg a yàgg ak moom te ku nekk jaar na ci suñu loxo ñu seq ay liggéey yu bari bari waaye ni mu koy defee ni mu koy defee yomb nga gis euh, un préfet di ko def ñoo la koy gën a dénkaat dina xamal ni daal suñu xel dal na ci moom waaw préfet gàmmu Daaru Gay dafa doon gàmmu boo xam ni foofa daari alxuraan la yaakaar naa ñun ñëpp xam nañ ko daara joo xam ne boroom dafa dem ba ci àll bi mu gor ko ne fii kat dama fiy liggéeyal yàlla indi fa ay donga donga yi ne fa ñoo xam ni amuñu duñu fay duñu fay dara moom mën a yor lépp ci benn fànn ci wàllu yàlla alhamdulilah ñaareel bi li chef l'état ne bëggatuma gis xale yi ñu yalwaan ci mbedd mi moom ma nga ca kooku pour ñëpp ñu xamee ko ñu xamee ko noonu suñu frère euh, Maodo Gueye moom moo fa nekk moom mooy sëriñ ba fa nekk ndax bi fi waajur wi nekkee ak ñun moom la féetaloon foofu ñun mu féetal ñu ci beneen fànn moom it ñoo ngi koy sant bu baax a baax a baax a baax ndax taxawaayam yëpp boo gisee doo leen gis lu bëri ci administration bi mooy moom dafa fees place bi ñoo ngi koy sant ko gërëm mais préfet suñu réunion bi tey bi du ma ni musta am waaye jafe na ci réunion ndax pertinence bi bi bi nga ci dugal luñ ci wax nga ni nañ ma indil copie bi kooku man dinaa ko suivre lii bàyyil mën naa koy suivre sama bopp yombul ñoo ngi sant service yëpp ba defee ñoo lay ñaanal yàlla euh, fii nga nekk nga toog fi ak jàmm yàlla gën la yokkal say grade ñoo ngi lay euh, sant bu baax a baax a baax di sant comité rural bi sant ñëpp ñi fi nekk ñëpp ndax su ma limee damay juum Serigne Maodo bi mu ñëw mi nga ànd ak chef de village bu Bambilor ak chef du village bu Gorom ak sëñ ki euh, ki euh, sëriñ bi Mbàkke dëkk mbëtt une forte délégation la ñu àndal ñëw waaye daal suñu xol sedd na sedd na préfet waaw tey moom jàngalaat nga ñu ñun ñii ñu nga xam ne ay dong lañ nga xam ne dañuy dañoo roy ci ñun jàngalaat nga ñu ak dal ak woyof ak mbaax waaw xam naa ne ñoo leen sant bu baax a baax a baax di leen gërëm.